waa gars yi na ngeen def maa ngi leen nuyu leen ziar leen fàttali yéen a ngi seen canal Galsen Tube ci seen programme comment gagner de l'argent sur YouTube naka la ñuy gañee xaalis ci YouTube vidéo yi ki leen koy defal di Pape Mor Lo ñu leen koy defal euh, en wolof vidéo bi nag euh, vidéo di jour la rek euh, si ay membre ci canal bi li ma interpellé ci miniature suñu yoree seen téléphone am seen vidéo bëgg ci dugal miniature nan lañ koy defee ci lii nga xamante ni mooy seen téléphone moo tax ma ci benn vidéo bu gàtt rek expliqué leen vite fait nan ngay defee ci sa téléphone lii nga xamante ni mooy miniature c'est très simple boo connecté boo yëre sa téléphone li ngay def mooy su fekkee amoo YouTube studio bii nii ah, bii nii lii mooy YouTube studio lii ma def carré bu ruus bi nii mooy YouTube studio su fekkee am nga ko sebon bon mun nañ dem su fekkee amoo ko da ngay dem Play Store mi ngi nii Play Store Play Store bu beekoo nga dem ci barre de recherche bi nga tàppe youtube studio gis nga ñëw na ci suuf sax nga def recherche nga boo defee recherche youtube studio mi ngi nii voilà bu amee beneen bu logo bi la nga bay si juub c'est très simple c'est bind nañ ci youtube studio kii ko dugal mooy google llc nga bàyyi ci xel su dee kaneen moo ko dugal ku dul google llc beneen copie la bu nit def mu piraté ko mais nekkul youtube parce que application yi léegi-léeg nit day def application keneen copier même application tudd ko même tour mais yaa ngi mën a xam ci ki ko moom muy ki nga xam ni moo ko dugal nga am ni kooku mënoo imiter compte am benn compte la compte Google la parce que dama ko installé moo tax ji nga à côté mu defal ma fii ouvrir parce que am na sama téléphone su fekkoon amoo ko nag installé la lay bindal fii nga installé ko voilà kon léegi ñu dem direct ci YouTube studio ginnaaw ba boo ko installé ba pare c'est très simple nii lay figurer ci sa ci sa écran léegi danga koy cliquer boo cliquer mu ubbeeku su ubbeekoo automatiquement fii mooy page d'accueil bi sa YouTube bi nga xam ne moom moo connecté wu ci sa application YouTube normal xaaral ma ko application YouTube normale bi nga ne moo nekk nii ci suufam li mooy application normale bi parce que boo cliquer moo la yóbbu si YouTube bi nga ubbeeku na nga mën a seetaan ay vidéo application bi ngay seetaanee d'habitude ay vidéo gis nga mën di cliquer seetaan ay vidéo application normale la mais moom loolu lay jëriñ pour navigation kese la voilà léegi mu nekk nii moom da nga ko fi donc moom ab ah, euh, compte bi ñu ci connecté wu di ci di ci ko utiliser soo cliquer YouTube studio bi compte boobu automatiquement day synchroniser fii su fekkee synchro synchroniser wul su la demandé connexion soo connecté wu automatiquement da koy détecté indi ko fii voilà léegi boo ñëwee fii nga xamante mooy accueil bi fii la ci YouTube nga wàcc boo ñëwee gis nga mi ngi lay defal fii vidéo yi vidéo yi su fekkee ni vidéo bi nga bëgg a euh, def euh, miniature feeñu fii fii ngay cliquer fi ñu def autre contenu autre contenu bi boo clique mu gé mu génn la beneen liste vidéo yi gën a bëri nga def yeneen contenu vidéo nga soxla di nga ubbeeku na léegi ngay dem gis nga ngay wàcc ndànk-ndànk wàcc ndànk-ndànk ba vidéo bi nga xam moom nga soxla par exemple bu doon bii lañ soxla bii ñu bind 1000 abonnés 1000 1000 vues égale 1 dollar c'est vrai bu doon vidéo bi laa bëgg nag léegi changer miniature def ci beneen miniature moom laay cliquer nga cliquer ci kaw vidéo bi boo ci cliquer gis nga vidéo bi ubbeeku na vidéo bi ubbeekoo c'est très simple gis nga defal na la benn flèche flèche bii nii nekk ci kii su fekkoon da nga bëgg arrière dem fi nga jóge flèche bee ngay bës flèche bi gis nga mooy laa def carré bu rouge bi su dee da nga bëgg modifier vidéo bi am changer titre bi wala description bi crayon bii nii ma def carré bu rouge bi moom ngay cliquer voilà su dee da nga bëgg partager vidéo bi di nga symbole partage bi ñetti point relié par des traits moom ngay cliquer bu may def carré bu rouge bi nii boo ko cliquer nga mën a partager comprendre su dee da nga bëgg xool ci YouTube logo YouTube baa ngi ne nga cliquer ko léegi da nga bëgg a changer miniature bi c'est très simple da ngay cliquer ci kaw vidéo bi ci euh, big bi ngay def moom ngay def euh, changement ngay cliquer mooy big bi nii crayon bi feeñ moom ngay cliquer wane nii danga nga bëgg am modification yoo def ci vidéo bi nga cliquer crayon bi bi ma def carré bu bi nii boo ko gis nga image bi boo xoolee ci koom am na loo gis bindal la fii def nañ la fii benn symbole photo bu ndaw bindal la fii modifier la miniature voilà bii nekk ci kaw photo nii ma def carré bu bi ji gis nga ko modifier la miniature foofu ngay cliquer soo ko cliquer gis nga yóbbu na la ci image yi nga xamante ni yëpp yaakaar na ay miniature la gis nga yóbbu na la si partie yi nga xamante ni ci vidéo bi la maanaam nu ma la ko mën a waxee mooy bii nekk à droite dañ bind ci modifier def logo photo bi boobu noonu su fekkee da nga bëgg euh, nu mu tëddee euh, euh, outil image ci sa te biir téléphone la image bi nga bëgg a chargé nekk foofu ngay bës. su fekkee nag ñett di ñett yi si des muy bii nii ma feeñ nii ak bay dessin bi nekk ak beneen bi logo YouTube bi di feeñ yii ay image yu nekk ci biir vidéo bi la YouTube demande ma ndax yooyu nga bëgg choisir benn partie ci biir vidéo bi su fekkee yooyu bëgguma ci fekkoon dessin bi laa bëgg choisir dessin bi laay bës nii su ma ko bësee gis nga mu ñëw automatique nekk na miniature su ko defee li li may dese mooy bouton sélectionné bii ci kaw laay dem sélectionné ko gis nga bi changé na ma def enregistré waaye comme soxlawuma ko damay def damay cliquer nii soxlawu ma ko gis nga bu ma neexee dama jël bu bu bu verte bi gis nga su ma ko cliquer gis nga mooy ñëw pour miniature beneen bii nga xam ne feeñ naa ci su ma ko cliquer gis nga mooy ñëw pour miniature bu ci mënti nekk mën naa ko choisir muy ñett yi voilà bu ma leen choisir ba pare c'est très simple sélectionner laay dem fee ci kaw fii carré bu rouge bi nekk ma def nii ci kaw sélectionner su ma sélectionner automatiquement mu dugg ci vidéo bi ma def enregistrer boobu mooy nekk sama miniature. mais su fekkee nag miniature bi ma soxla dafa nekk sama biir téléphone nga xam ne moom laa bëgg a dugal te xam loolu ki may laaj looloo tax mu koy laaj muy dafa yor image ci biir téléphone am bëgg koo def ci miniature ci vidéo bi bii nga xam ne mooy njëkk ni mooy première nga xam ne mooy miniature d'origine bi ci ngay cliquer voilà gis nga mu ngi nii indil na la modifier la vidéo voilà xam nga fii la ñu indi woon départ nii la meloon yii si des yëpp doo leen parce que image yu YouTube ci biir vidéo bi la bii nga xam ne nag fi lañ la bindal modifier fi ngay cliquer boo cliquer da yóbbu ci sa galerie si sa biir téléphone daal maanaam yow nga choisir image yi nekk ci sa biir téléphone voilà yi nga image yi yëpp parce que message WhatsApp yi la yi nekk sa biir téléphone ban nga bañ nga si bëgg a def euh, par exemple minia euh, sélectionné comme miniature voilà exemple mi ngi mel ni moo fekk man mu nekk daal photo bu bii nii bii nii image bi laa bëgg a def miniature vidéo bi image bi laay sélectionné dégg nga su ma ko sélectionné image bi ñëw na nekk si nga nekk na miniature léegi image bi ngi dafa rëy may na moom mu puus ko di ko régler di ko régler ba fi ma bëgg di nga gaal seen tub bi di nga génn parce que image bi dafa yaatu dafa ëpp su fekkoon image bi dafa nekk net 1280 sur 720 dajee yem net voilà parce que résolution vidéo bi deux cent 1280 la 720 mooy résolution euh, minimum pour nekk HD voilà su ko defee su fekkoon <coughs> vidéo bii léegi choisir naa ko ba pare miniature bi laaj bëgg a def c'est très simple damay def sélectionner mi ngi nii sélectionner sélectionner naa boobu après jeex na viro dugg na li ngay def mooy cliquer enregistrer su ma cliquer enregistrer bi rek jeex na nii la ñuy changer miniature si YouTube léegi li may dese mooy bouton enregistrer bi ci kaw kese kese kese su ma ko cliquer bi image bii am Galsen Tube bi ma choisir ko tam nekkoon sama biir téléphone mooy daal di nekk miniature bi jeex na. voilà léegi du ñu wàccaat ñëw ci leneen ndax dañu bañ vidéo bi gudd wala mu jaxasoo parce que dañoo woon rek nu ñuy defee miniature kase la ñuy def vidéo moo tax ngeen xam ne vidéo miniature si téléphone nii lañ koy changer c'est très facile voilà lu yomb la mun nañ génn supprimer les modifications gis nga ma gis nga gis nga gis nga c'est très simple voilà da ngay ñëw YouTube Studio boo ko amul nga installé ko nga cliquer YouTube Studio moo nekk nii carré rouge bi boo ko cliquer vidéo bi nga bëgg a changé ak bu munti doon nga cliquer vidéo bi ci kaw image bi gis nga noonu soo cliquer vidéo bi génn na big bii mel wala crayon bi nga xam ne mooy pour modifier la am carré bu rouge bi nii nga cliquer ko ko cliquer gis nga fii ñu bind modifier la miniature te am logo photo bu ndaw bi ci diggu image bi fa ngay cliquer ñu cliquer ko ngeen xool dégg nga boo ko cliquer image baa ngi sa biir téléphone fii ñu def modifier fii fi ma def carré bu rouge bi ñu def modifier fii ngay cliquer boo cliquer gis nga mu demande dugg na ci si photo yi nekk sa téléphone demande la ban nga bëgg def miniature nga sélectionné bi nga bëgg a def miniature gis nga nekk na sa miniature nga cliquer sélectionné bii ci kaw am carré bu rouge bi gis nga miniature bi dugg na lenn rek moo ci des muy cliquer bouton enregistré bu rouge bi ci kaw voilà fii nag laa yem bañ ko cliquer ndax bii comme bëgguma ko choisir comme miniature dama leen doon war rek nu ñu dugale kon du ma enregistré mais bu dee yow nag da ngay da nga defoon sa miniature sa biir téléphone bëgg ko choisir pour def ko bul fàtte cliquer ci bouton enregistré bii ma def carré bu rouge bi sinon miniature bi du dugg waaw vidéo bi foofu lañ koy yemale di leen sant leen gërëm seetaan bi nga doon seetaan j'espère que comprendre ngeen ko fekkee am na lu ci leerul seen bopp tamit mun ngeen ko demande ci commentaire yi wala ci numéro téléphone bi ne mi ci vidéo bi mun na whatsapp mun ngeen ci envoyé message mun ngeen ci envoyé dinaa leen tontu voilà ci moins de 24 heures incha allah dinaa leen tontu bu ngeen envoyé tam te nekkuma en ligne tamit xam leen ni dinaa ko gis parce que chaque jour ci journée bi dinaa jël benn temps boo xam ni damay connecté si whatsapp bi pour xool question yi pour tontu ko. ma leen sant di leen gërëm seenaat bi nga doon seenaat di leen jox daje ci beneen vidéo du jour incha allah rabbi jërë ngeen jëf. ma lay demandé nag su fekkee nag euh, abonné goo ci canal bi. boo cliqué fii ci bouton bi G bi boo ci cliqué rek mu génn la bouton bi ngay abonné nga abonné su dee abonné nga ba pare nag. cliquer vidéo bi nga seetaan ko mooy vidéo bi ñu mujjee dugal moom ay mbir ngi ci ay tips ak ay secret